Bonjour chers fidèles amis internautes de seninfo.net et Seninfo International, bienvenue dans cette page de l'information. Les travaux de l'instruction des assises de la justice ont eu lieu ce mardi à Diamniadio, une occasion pour Bamba Kassé, de la commission réforme, de dévoiler les recommandations faites au sein de ce groupe. La commission réforme de la justice est scindée en sous-commission, à savoir organisation et fonctionnement à charge de euh, passer en revue l'architecture judiciaire, ses différentes implications et son fonctionnement et une sous-commission acteurs missionnés pour revisiter les différents intervenants dans le secteur et leur structuration. L'objectif de la commission réforme est de juger le fonctionnement et l'organisation de l'appareil, mais également de mesurer incité à l'une de la participation des acteurs de la justice. Le blocage des comptes du groupe Avenir Communication, d'où le patron Madjambal Diagne, est en train de mobiliser les patrons de presse. Les membres du CEDEPS sont convoqués à une réunion d'urgence pour statuer euh, sur les poursuites des impôts contre les entreprises de presse. La rencontre aura lieu demain mercredi 5 juin au siège de rapporte Gesso dans son édition euh, de ce mardi 4 juin. Hatch 2024 280 pèlerins avaient été bloqués depuis vendredi dernier, faute de vol de la compagnie aérienne Air Sénégal vont enfin prendre leur vol. Le dispositif mis en place par le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, El Malick Ndiaye, a porté ses fruits. En effet, tous les pèlerins vont en fait se rendre au liaison de l'islam avant la date butoir le juin prochain. Et à présent, parlons l'actualité en dehors de notre frontière. Depuis le début de la guerre de Gaza, ces images reviennent sans cesse. Des gazuis arrêtés par l'armée israélienne, dénudés, les yeux bandés, agenouillés et les mains liées dans le dos, accusés d'appartenance au Hamas. Ils sont notamment emprisonnés aux Estes une base de l'armée israélienne dans le désert. Un médecin israélien, un lanceur d'alerte qui a travaillé, dénonce des traitements inhumains infligés aux détenus gazouis. Et maintenant, terminons cette brève avec la page sportive. L'équipe nationale du Sénégal se prépare à des rencontres cruciales dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Le 6 juin, les Lions croiseront le fer avec la RD Congo, suivi d'un derby contre la Mauritanie le 9 juin. Cependant, ces matchs décisifs se joueront sous, sans la présence de leur leader technique Sadio Mané, blessé au genou, l'absence de l'ancienne star centre de Liverpool, plié de l'attaque sénégalaise, constitue un véritable casse-tête pour le sélectionneur Aliou Cissé qui doit réorganiser son équipe pour compenser cette absence de taille.